manam kaddu ñëk yi manam dañoo triste parce que lii fi am démb ci guddi dafa nekk lu metti donc ñu koy metti lu ñeent fukki doomu adama ñàkk seen bakkan ci benn accident yaakaar naa ne loolu gulet ci Sénégal la accident de la route gulet la ci Sénégal mosu fi am ñaari bis ñu wax ay horaire bi jógee côté euh, Dakar di dem be jógee côté Tamba di ñëw dakaar ñu daje ci guddi gi vers trois heures du matin nee na ñu euh, enquête bi benn bis bi la pënam toj mu dem janoog beneen bés bi li indi lii certainement daw bu bëri amoon na ci ñuy jaal ñu fi jógee ñeent fukki doomu aadama ñu xam ne ñàkk seen bakkan di jaal di ñaal seen njaboot yi ñi nga xam ne dañu am ay gaañu gaañu dégg naa fanweer la ak juróom-benn euh, ñu ngi leen di massawu di ñaan suñu borom yegg ci leen ci ci jàmm euh, lu ci am solo mooy président de la république déjà def na deuil national pour trois jours jox na ndigal premier ministre pour mu organiser euh, un conseil interministériel euh, ci ngoon si donc conseil interministériel boobu xam naa dañ ci jëlee ay ndogal yu am solo parce que il faut ñu mën ci jël ay ndogal ndogal yoo xam ni buñ ko appliquer yaakaar naa ne lu mel nii ah gëm naa ni dootu fi amati

bu lu mel ni dootu di amati daañu ci jël suñu ay mesures appliqué ko ànd ceeg les forces de sécurité et de défense